Bienvenue sur Salam Vision. alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam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 la yàlla yónnee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tombeek weeru koor kon ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ci bis bu tedd bi di ziara xalifa généraux yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziara waaye nag ñu jiital ci ñu ngi nuyu Serigne Babacar Sy Mansour yàlla sàmm xalifa général de Tidiane ñu ngi koy ziara bu baax yàlla sàmm ko yokku wéram yokk yi man-manam yokk suturaam ci barke sallallahu alayhi wa sallam ak njabootu Mawlaaya Seex Seydi El Hadji Maalik noonu la ñuy def def dem ba Touba fekk fa suñu maam Serigne Mountakha Mbacké nuyu ko ziar ko ñaanal ko yàlla fan nga gudd loolu ànd ak wér ci barke yonent bi alayhi salaam njabootu Mawlaay Serigne Touba gi yépp dem ba Kaolack fekk fa Serigne Cheikh Tidiane Niass rew la ziar ko ñaanal ko yàlla ak njabootu maam Khalifa ga dem ba Medina Baye fekk fa Serigne Mahi Niass ñaanal ko yàlla fan nga gudd loolu waa dem wér ànd ak sutura njabootu Cheikh Ibrahima Niass gi yépp dem ba Bichra fekk fa xalifa ba Serigne Habib Ndiaye ziar ko ñaanal ko yàlla jàmm bi ak biti ci barke yonent ba alayhi salaam ziar boole koo xam ne yaa ngi safoo télévision bi Salam Vision mu ngi leen di leen ziar di ñaan suñu tofeel di yokk ci yonent bi alayhi salaam suñu mbégeel di yokk ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom sallallahu alayhi wa sallam nag yàlla ci moom. yàlla moo julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam digal ñu ne nee na julli ci alayhi wa sallam moom subhanahu wa taala yàlla ko xam ne yàlla subhanahu wa taala digle na lu ne deful ko digle na julli deful ko digle na woor deful ko digle na aji màkk deful ko waaye lenn la digle jiitu ca ne nag yéen ñi nga xam ne maag samay malaaka ñu ngi julli ci yonent yàlla Muhammad kon yéen ñi dugg ci daara da ngeen julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ci julli ci yonent bi dafa foor moo tax yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam ndax yëgoo ne julli gii yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam yërmaane la ci ñun yërmaane la ci ñun waaye julli gi malaaka yi julli ci yonent bi alayhi salaam maxfira la ci ñun may jéggalu yàlla subhanahu wa taala waaye nag julli gi ñuy julli ci rasulillahi ñun mooy jaamu yàlla la ci ñun kon boo bëggee yàlla yi nangu say gaa jaamu yàlla day bëri looy julli ci rasulillahi alayhi salaam yëgoo na julli ci yonent bi rek moo am garanti ndax ndax jaamu yàlla bu ne am lu koy garanti tax mu wér aji màkka am na lu tax mu wér julli am na lu tax mu wér asaka am na lu mu wér waaye julli ci rasulillahi moom foo mën a nekk foo mën a nekk boo jullee ci rasulillah julli nga am jàpp nga ñàkk jàpp nga nekk ci sa biir nag nga ñàkk nekk ci sa biir saa yoo jullee ci rasulillah yàlla la julli gi nga julli ci yonent bi ndax sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fa kon julli ci yonent bi lu am solo la wa xiila man salla huwa jaalisun qudira lahu qabla an yaquuma wa xiila man salla هو قائم قذر له قبل أن ينجس وخيل من صلى هو نائم قذر له قبل أن يستيقظ من منامه dañoo wax ni képp koo xam ne taxaw nga julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam afaan toog yàlla jéggal la say bàkkaar nga taxaw julli ci rasulillahi afaan toog yàlla jéggal la say bàkkaar yu dox sa digganteeg sa borom waaye tamit boo toogee julli ci rasulillah yi taxaw yàlla jéggal la say bàkkaar bul tëddee julli ci rasulillah yi avant ngay yeewu yàlla jéggal kon julli gi gën ci julli mooy di julli sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci julli ci yonent bi def salaam lay may taraanga daf lay may xiiwa daf lay may bàkk wa xasal dawaaram mat xanuqbati bani haazim sama Abdul Aziz Dabakh dafa waxoon ne na nga amal ak tagg taxoo ko nag di tagg yonent bi foo toll mag xam muxbatul bani haazim ngay tagg tànneefu giiru bani haazim di Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alaaji Abdul Aziz Dabakh daan na wax ne bu del siwaatoon ci jam waaye bu nekkoon ndaw delluwaat di ndaw lenn rek mooy de yitteel mooy di julli ci rasulillahi alayhi salaam waaye di tagg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon waxasal la nga amal waxasal dawaaman mat xam muxbat ba ne hasil tanaal lazi ma tanaal lazi dala am li nga xam ne maa maa tabki min al fatxi wal yusri laaji am ne boo bëggee am ubbeeku ak koom Alaaji Abdul Aziz Dabaax nee na bëri na julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci boppam moo lay defal koom yàlla ci boppam moo lay defal leer te nit buy julli ci yonent bi alayhi salaam yonent bi ko mii yonent bi di ko xam ndax liñ lay identifié xam na yow sénégalais nga wala doo sénégalais mooy jullit nit mooy sa carte d'identité mooy tax tey boo tàlloon sa carte d'identité dana xam ne sénégalais nga dana xam ne yow gambien wala dana xam ne feneen nga dëkk ndax carte d'identité mooy wane yow fii nga dëkk julli ci yonent bi nag mooy présenter nit ki pour yonent bi alayhi salaam xam ne kii kat ci njabootam la bokk yëgoo ne sallallahu alayhi salaam xam nañ ko xeetam ñëpp xam na leen moom yonent bi alayhi salaam xeetam ñëpp xam na leen ci kaw nan la ñuy xamee mooy julli gi ñuy julli ci moom la ñuy xamee xam yaay kan xam foo dëkk xam kuy sa way suñu julli ci yonente bi alayhi moom la yonente bi xamee ndax carte d'identité dañ ciy bind fi nga dëkk xam yaay kan la kon booy julli ci yonente bi loolu lay sallallahu alayhi wa sallam identifié ba ba nga xam ba yonente bi xam yow yaay kan dafa am benn waay boo xam ne dafa sàggan ci julli ci yonente bi dafa sàggan yi julli ci rasulillahi alayhi salaam mu gént gis rasulillahi sallallahu wa sallam ci gént gi mu tàllal loxo yonent bi alayhi salaam di jox loxo yonent bi yonent bi téye loxo yonent bi ne ko du ma jël sa loxo waaye nag kanaa xamoo kanaa xamoo sallallahu alayhi wa sallam dafa xawma la de waaye nag sa xeet ci laa bokk ci sa xeet ci laa bokk yonent bi ne ko xaw na waaye ne ko yow sang bi dégg naa borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci sa xeet wax ne mboolem koo xam ne bokk na ci sa xeet yow rasulullah yi xam nga ko yonent bi ne ko borom xam-xam yi wax leen dëgg mboolem koo xam ne bokk na sama xeet xam naa ko waaye li may xàmmee sama xeet mooy julli gi ñuy julli ci man loolu laa la nga xàmmee yonent yow doo julli ci man yónn waa ji yeewu ci gént tiit commencé di julli chaque jour ba ba yàlla sàkk mu julli mu julli cent ci yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba benn bés mu gént gis yónent bi alayhi salaam tàllal loxo rasulullahi yónent bi tàllal loxo jox ko loxo loxo xam naa ne fi ne ngir salaatu ala nabi bi ngay def ci man kon mbokk yi boo bëggee yónent bi xam la boo bëggee yàlla def ci yow teraanga bëggal rasulillahi te li muy bëggee rasulillahi mooy di julli ci moom ndax yëgoo ni koo faral di tudd lu bëri bu yàggee nga sopp te koo sopp roy moo tax ñu julli ci yonent bi alayhi salaam dafay tax nga sopp yonent bi julli ci yonent bi alayhi salaam dafay tax nga bëgg rasulillahi te ku bëgg rasulillahi roy ko kuy julli ci yonent yàlla Muhammad yàlla daf lay may xel mu dal daf lay may équilibre nga am ndax wa man aarada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan yàlla ne képp koo xam ne dëgg nga bañ maa tudd man yàlla yàlla ñu ne amal ay milliards nekk milliardaire nekk lu la neex ci àddina waaye yàlla nee na danaa la teg natt boo xam ne da nga mujj ñàkk say milliards wala say milliards du la jariñ dara ngir lan ngir tudd nga war a bañ ngir lan ngir ñàkk gi nga ñàkk tudd yàlla subhanahu wa taala te loolu borom xam-xam bi ko fii day na mooy wa man aarada an zikri fa inna lahu ma'isatan dakkaa mooy képp koo xam ne day julli ci rasulillahi yàlla dana def ci yow tiisu dund xatal sa dund ba loo am ti lu mu rëy rëy rëy mu bëri bëri bëri yàlla xatal sa dund foo ni tiit foo ni am loo ragal li koy waral mooy ñàkk julli ci rasulillahi alayhi salaam dama lay dox benn histoire ne pour rek nga gën a xam lan mooy julli ci yonent yow mi bàyyi xel ndax dafa am benn góor boo xam ne. fu mu toll mi ngi julli ci rasulillah yàlla loolu bés ma ànd ak doomam di tukki di voyage lu dox ba ci yàgg góor gi feebar ci biir feebar bi yàlla moom ko góor gi dee ca àll bi moom doomam kese ca àll bi doom bi xamul lu muy def ndax bàyyi dee na te xamul lan lay def o oh, fan lay jëlee ay nit ñoo xam ne dana ko mën a jàppale ba mu suturaal bàyyam dee doom bi commencé di daw mu bàyyi teg ko di xool di dox ci àll bi di xool ndax dana gis ay nit ñoo xam ne dana ko mën a jàpp doom bi bi tuunaatee ñëw ci melokaanu bàyyi xam ne ne melokaan bi bu ko papaam duggee ci biir bàmmeel yàlla bëggoon doom ji ci di jooy di jooy ngir jaaxle mu jékki-jékki rek moom doom ji nelaw jàpp ci biir nelaw yi mi ngi gis benn góor mu ngi war benn fas yu weex taal sol yére yi weex taal di xeeñ neex di dawal fas yi di ñëw doom ji ci biir gént mu ngay waaye di dawal fas di dawal fas ba yegg si fi ñu tëj góor gi mu wàcce fas muri góor gi jël loxoom teg ci kanamu góor ga raay ko kanamu góor ga leer nañ ba mel ni weeru am fukki fan ak ñeent mu waraat pasam nar a daw nar a dem xale bi ci gént gi mu mu gën a bëri yow gis góor gi téer téer ko na ko yow la kan yow mu rafet nii yow mu taabu nii yow mu jekk wi yow borom parfum neex bi yow la kan mu ne ko man la Muhammad ibn na man la Muhammad bi nga xam ne ci man leen wàcce alquranul karim man la xal bi nag góor gi yonent bi waaj yonent bi nag sa pap li tax kanam gi mel nii daan na lekk riba moom riba daf ko bëggoon moo tax moo tax moo tax moo tax kanam gi mel nii ndax am na ñoo xam fu ñu toll lekk ku ñu dóor ku ñu diin dem seen yoon pare leen ci te yëngal nag boo dóor benn yoon doo ko dóoraat boo dóoree ñëpp nag da nga mujj fan leen ndax ama amati foo dóoree loo tax doo dóoru gars yi ñu dóor nañ ko bàyyi kon gars yi dóor nañ ko bàyyi kon mbokk yi dóor nañ ko bàyyi gi na ko yonent bi na ko kii li tax kanam gi meloon ni daan na lekk di naxaati di tëj diin naa nga maa ngi wala sànq wénnee ma naa nga fekk na loola taxoon kanam gi mel waaye li tax nag man daal kanam gi kanam gi delluwaat mel na meloon leer nañ ba mel weeru fukki fan ak ñeent daan ci man moo tax ma ñëw xetti la ko mbokk yi boo bëggee foo nekkee ci jafe-jafe yàlla xetti la ci jafe-jafe googu bëri looy julli ci yonente ba alayhi salaam wallahi alazim boo bëree looy julli ci yonente ba alayhi salaam jafe-jafe boo nekk yàlla dana fa fekk xetti la ngir barkee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mag ñi bëggoon yonente ba alayhi salaam moo tax mag ñi soppoon yonente ba alayhi salaam sa maam Cheikh El Hadj Malick wax na ko ci xalaas nee na julli yi may julli ak woor ngeen naafil ak ñamaat bi yëpp yàlla dama ko digal pour ma def ko loola tax ma koy def waaye yaakaar ma dara ma dugal ma aljanna lu dul bëgg gi ma bëgg rasulillahi rek laa yaakaar ma dugal aljanna wa laysa li amalu alqaaka yaa amali siwa almahabbati wa taasini wa salami Maodo nee na ëllëg bu yàlla taxawee rek jaabi di laaj Maodo nee na lenn rek laa yaakaar ne su ma ko présenté yàlla yàlla kontaan ci yàlla bég bég ci ñu ne ko Cheikh Alhaji mooy lan mu ne mooy bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma ci bëggoon yonent bi kii fi ngeen boppam xaadim rasul ngir soppoon rasulillahi mooy alamali rahmaani fi safina bi annani xadimu silmadina man si man si Ahmadu yàlla xamal na ma ci biir gaal ga ne man maay mbindaanu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ki ngay liggéeyal nag am na ne sa seef la mais liggéeyal guddi ak bëccëg te bu ko mu fay la bu la joxee xaalis ko jëlal kooku am nga foo ko teg Sëriñ Tuubaa ne kenn laa sopp mooy rasulillahi moo tax gàmmkat bi dafa di wax ne kitaabu Mustafa caatloo Murtala ki wiir wiiri jaari ndaari jaari maa yombe sëpp jëba jëba takk suuf ñëw sanc lu may jaare kooku may bàyyi ba sa baax bëggoon gi bëggoon rasulillah yi jéggi na doyul ndax ñoom xam ne na seen àddina mënta baaxee lu bëgg rasulillah yi xam ne na seen biir bàmmeel mënta neexee lu bëgg rasulillah yi xam ne na seen njaboot mënta barkee lu dañoo bëgg rasulillah yi moo tax sama mën sa waxoon ko mahabatuhu yumnu wa amnun wa rahmatu wa taksu min al anwaari man kaana aaya alaaji Mansuur bàyyi xalifa yi yal na fi yàlla ci barke yonent bi ak mboolem xalifa laaj Mansour daf ne mahabbatu bëgg rasulillah yi doon barke sëriñ Sam mu yëgoon boo bëggee sa lépp barke bëggal rasulillah boo bëggee sa njaboot barke bëggal rasulillah yi boo bëggee say diplôme barke bëggal rasulillah yi boo bëggee sa wax barke bëggal rasulillah yi boo bëggee rasulillah yi yàlla lay tàggat jàpp mu bëgg la far force kon mahabbatu boo yóbbu maam Aliou ba Niass radiyallahu anhu ca kaw nag daan na wax ne barke bi jëmm waaye jëmm dund nga xam ne jëmm ji barke kon mahabbatuhu yumnu bëgg yonent bi salaa sallam barakaat mahabbatuhu am bëgg rasulullah sécurité la boo bañee sa xel yàq boo bañee sa alal sànq boo bëggee sa jabar am tranquillement alaaj alaaji man surniin na nga bëgg rasulillahi alayhi salaam bëgg gi nga bëgg rasulillahi moo leen may sécurité yow mi nga xam ne yaa bëgg rasulillahi may ko ci sa njaboot may ko lépp loo xam ne taqal ci yow soo bëggee rasulillahi mahabbatuhu am waaye mahabbatuhu wa rahmatuhu bëgg rasulillahi yan maanaam la boo bëggee rasulillahi buñ la dugalee ci biir bàmmeel laaj na kuy sa borom nga ne yàlla laaj na lii sa diine nga ne islam laaj na laaj na ne la kan lan mooy sa téere nga ne alquran karim ñu génn benn photo rafet benn jëmm ñu taaru ci sa biir bàmmeel ne la kii loo ci xam ku taaru kii ku rafet ki ngor màkka dàq ñëpp moo gën a civilisé ñëpp musta wax mooy tëdd di génnee ci gémmiñ gi moom rasulilahi bu doon wax leer may génnee ci diggante ba ñi isa takallama xaraja nuuru bayna sanaya wa sinna muhammad gémmiñ nga ron mu am sàkk yàlla kaw am sàkk yàlla suuf moom rasulilahi am ay ndombay baat ba di di ron lay ñuul ci përi bët ba ñuul lay weex na tar moom rasulilahi ñu xool gos di xool droit mbedd mu jaar bu fa rombee nga xam ne bee fa jaar ndax parfo bi génnee salaa moo tax ñëpp moom sallallahu alayhi wa sallam gaa yi daan leen bàyyi daan leen toog ba ci daan leen toog jékki-jékki bu yonent bi salaa salaam ñaqee ñu jël ay mosoo ay morsa ñoom fekk fi yonent bi alayhi salaam ñaq ñu fonk ñaq rasulillahi dem yóbbu seen kër pour bëri dee ndox dugal ko musuwaar ba bëri doon ndox boobu ndax mboole parfum àddina ñu koy jaay moo tax parfum lu muy neex neex parfum da génnee ci jëmm rasulillahi noo ko dàq yor naa ko daan nañ naq bu ñàkk ba ñàkk fenn ci yaramam da ngay gis Sayyidina Muhammad di gën di rafet nga gis Sayyidina Muhammad di gën di bëri di gën di taaru moom Sayyidina Muhammad alayhi salaam kon kuy taaru loolu màkk la gën a taaru alaa gën a suur ni la boo bëggee yàlla am ci yow yërmaane bëgg rasulillahi ndax bëgg yéen bëgg rasulillahi boo duggee ci biir bàmmeel ba war na fotu Sayyidina Muhammad loo xam ci kii dana kii mooy Muhammad ibn Abdullah kii mooy Sayyidina Muhammad kii la doon oustaz Mouhamed Ndiaye soppe la bi daan waxtaane ci Salam Vision kii mooy rasulillahi ñu daal yaata sa bàmmeel mu rëy lool yaatu lool ñu balancé la ay tiwo yoo xam ne direct aljanna lay jógee direct aljanna lay jógee sa bàmmeel nga fay dund ci taraanga di dund ci sa bàmmeel xéwal ba yowmal xiyaam jot nga daal naan pum pum pum ci dugg aljanna loolu ko may mooy bëgg Sidina Muhammad mbokk yi lañ bëgg yonent bi alayhi nee na sopp rasulillahi nañ ko bëgg ndax moom kat bëgg ko teraangal ndax moom kat bëgg ko sutural ndax moom kat bëgg ko boo ñàkkee leer rafle ci ay leer nga bëgg rasulillahi yàlla ci boppam moo lay wadu ci ay leer yàlla ñu yàlla soppale rasulillahi alayhi salaam di ziar ñëpp tabaarakallahu di ziar mboolem koo xam ne yaa ngi bàyyi xel tala Salam Vision euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar Haji Babacar Mbaye Sow ma ngi mbooro ñu ngi koy ziar baax soppee boobu Seydina Omar li xaritam boobu borom cabaal gi tabaarakallaahu mu ngi koy ziar moom Seydina Omar li tabaarakallaahu ziar waa mboor yi ziar soxna Kya Aidara Mboup Serigne Babacar Sy radiyallaahu anhu ñu ngi koy ziar ñu ngi Sidi Ali Sow ñu ngi koy ziar ba Hadj Moustapha mi ngi France Hadj Pape mi ngi France soxna Ndiaye moom tamit soxna Hawa tabarakallahu yoon alxaaji ngay e, taw borom dibitee boobu si cité ca e, parcelle unité sept tabarakallahu ñu ngi ziar ci ko ñaanal yàlla jàmm bi ak biti ci barke yonent bi alayhi salaam soxna Mariama foofu la ñu ngi e, cité Fadia maa ngi koy ziar bu baax soxna Xadijata Gay sama jigéen yooyu ci cité Fadia nan la ñuy ziar bu baax ziar ci barke yonent bi alayhi salaam soxla nañ sa lool sëtu sëñ Dame Abdourahmane moom te Touba ñu ngi koy ziar Seydi Moxtaar ak sunu sëriñ sunu way jox ñu ngi koy ziar baax bi ak bi ak jabootam ci barke yonent bi alayhi salaam seen soppe seen xarit Oustaz Mouhamed Ndiaye soppe na bi moo anana yéen ci keppaaru Rasulullah yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa